Zero. mu mel ni ñu ngi tey Guédiawaye nag Balla Gaye numéro 2 moo fi woote woon pour open press yaakaar naa ne gis nañ ñu fi def waa Guédiawaye yëpp génne nañu comme ni ko booy ñang defoon démb Pikine Balla say supporter ak yi waa Guédiawaye ngi nii sur si moyen 3 wala moyen 4 looy wax waa Sénégal looy wax waa Guédiawaye ginnaaw bu ñu la nuyu ziar la bu baax a baax a baax auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim ginnaaw bu ma sant yàlla julli si yonent bi a alayhi wasallam sant samay ñaari waajur sant suma sëriñ ñaan si Mountakha Mbacké bu yàgg loolu tawér njabootu waa kër Alaaji Malick bu yàgg loolu tawér njabootu Cheikh na Cheikh Sadou bu murid Tijaan Xaadir Laay Ñaseen Baay Laay ñëpp maa ngi leen sant gërëm rawatina waa géejuwaay gi nga xamante ne ñoo bàyyi seen yëpp ak supporters yi nga xamante ne aussi ñooy bëgg mais balaa maa sori ah, damay am benn appel bu may lancé rek ginnaaw nag lamb mooy suñu cosaan lamb lañu am mooy suñu fête nationale ñu war a jëm le premier janvier incha allah dama bëgg Macky musul seetaan lamb fii ci Sénégal. déedéet waay waaw. mais damaa bëgg mu ñëw seetaan le premier. le premier. président de la république damaa bëgg mu ñëw seetaan ah. ak opposition bi yëpp ñu xam ne Sénégal. waaw benn la. Uh-huh. lii mooy suñu fête nationale. Uh-huh. opposition bi Macky Sall ñoo ngi koy wook mu ñëw si daal combat bi. Uh-huh. te loolu ñun jeunesse bi lamb lañ am lamb lañ bëgg lamb lañ fonk mooy suñu cosaan amuñu lenn lu lamb mais nañ ñëw Macky Sall maa ngi koy woo mu ñëw seetaan si lamb ji le premier janvier di nuyu suma staff ak sumay encadrement bu baax a baax di nuyu Aziz Alioune Ndiaye bu baax dafa jox wàccuwaayam di ko yokk lépp lu mu ko sant di ko gërëm di ko ñaanal jàmm di gërëm sama père Diaw gis ngeen coono yi ma jigéen bàyyaale nga xam suma lépp la maa ngi koy sant di ko gërëm Masata maa ngi lay sant bu baa di la gërëm Babacar Ndiak Omar Gueye Cheikh Mbacke Kabou Ahmed Naar Mbaye Diop Talla Meng Modou Fall Pape Mama Andaw Ndiaye maa ngi leen di bëggee bu baax a baax rawatina école de lutte Balla Gaye maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di gërëm monsieur le maire mu fi jógee Ahmed Aïdara di gërëm Ilimane Lam du suma xarit du suma nit du suma lépp vraiment gis nañ coono yu ñu ci daj na waa Waalo bu baax maa ngi leen sant suma waa dëkk waa Casamance bàyyi mu fenn waa Fouta waa Canaba maa ngi leen di bëggee bu baax a baax waa Mourtani suma mbokk chrétien damaa bëgg combat bi ñu ñëw ci. ah bu ñu fexe incha allah damaa bëgg ñu ñëw ci. xam ne bala gee numéro 2 woo na leen. chrétien yi. di nuyu nag yi nga xam ne soo bëree ñu bàyyi seen yitte. ñëw di seetaan Balla Gaye numéro 2. Mhm. maa ngi leen sant di gërëm. di leen jox seen wàccuwaay. ñu war a dem le premier janvier. Mhm. di ci ñaan yàlla yàlla may ñu ndam. Mhm. di gërëm mbëru géej waaye yëpp ñu fi teew la. bàyyiwuma kenn. guy gi jaar na fi. Lac de Guiers mu ngi fi. Ngaaka Blindé mu ngi fi. <laughs> Jackson waa gis nga Jackson mu ngi fi. Ah. Alioune Seye mu ngi fi Eumeu Sène Junior mu ngi fi. Sokossi mu ngi fi. coach Lamine Faye mu ngi fi. Mm-hmm. maa ngi gërëm sama coach si tamit gii maa ngi koy sant bu baax di leen gërëm gis naa liggéey bi kontaan naa di gërëm xaadim su entraîneur boxe maa ngi koy gërëm di gërëm waa Kamba waa Asfa maa ngi di sant bu baax baax a baax baax di leen gërëm di gërëm géejawaay gi yëpp nag képp ki nga xamante ne rek nga géejawaay yàlla defal la tey nga am succès di gërëm caat Seck nga xam ne jaar na fi def devoiram kon donc maa ngi koy sant ko gërëm di gërëm mbëru Guédiawaye bu ma naa juum Adama Ngom mention spéciale Adama Ngom famille Ngomès maa ngi ñoom démb la tey doog a ñëw di gërëm famille Sakho yëpp famille Ndiaye maa ngi leen di bëggee di ñaanal école de lutte bi yàlla dafa leen ndam di gërëm Golo nga xam ne suma ancien la maa ngi koy sant di gërëm di gërëm su ko siim ah di gërëm saa kees mention spéciale di gërëm Bousse nga xam ne sama xulóowaay la sànq bi ñëw xulóo nañ ba sonn kon nag vraiment Bousse ñëpp xam nañ ne nu mu mel ci man